ñu ngi war a tàmbali tey nag ci xuququ zawji zawjati ala zawjiha maanaam ak jabar ci kaw jëkkëram waaw yii fan yëpp nag ñu ngi nekkoon ci àqu jëkkër ci kaw jabaram waaye tey nag àqu jabar ci kaw jëkkëram ñu déglul ci yàlla ak yonent bi sallallahu salaam wax qaala tabaraka wa yàlla ma kaw bi di nee na walahunna mislu lazi alayhinna bil maaruf war na ci jigéen ñi eh, lu tolloog allazi li nga xam ne alayhinna bil maaruf maanaam li war ci ñoom ci njekk waaw war na si ñoom tamit ñoom ñu def njekk diggante seen digganteeg euh, jëkkër yi waaye wala rijaal alayhina darajatun euh, ñeel na nag seen i jëkkër yi nag ci seen kaw ay daraja maanaam ñoom ñoo leen ëpp daraja daal jëkkër yi ëpp daraja kaw jigéen ñi waaye wallaahu yàlla azizun hakim ku tedd la te it ku xereñ la suratul bakara wa qaala taala yàlla nee na wa aatu nisaa saduqaatihinna na ngeen jox jigéen ñi seen i can bu ngeen leen dee takk neex la tan mu neex leen lool nag can bu leen di neex fa in dib na lakum waaye nag bu ngeen leen joxee can bi ba noppi rek ñoom ñi seet ci lenn mu neex si ñoom ñu ñu jox leen ko ngir yàlla an shay'in minhu fekk liñ leen jox lu lu sedd seen xol la yéen tamit fa kuluhu hani an mariyan lekk leen ko dagan na ci yéen te yéwén na ci yéen dara nekku ci sooratu nisaa wa qaala taala yàlla waxaan na wa aachiruhunna bil maaruf yéen jëkkër ñi àndaleen ak jigéen ñi nu mu gën a baaxeek ni mu gën a rafetee fa in karihtumuhunna demee nag bañ leen ngir jikko yu ñuy def wala jëf yu ñuy def ah faasa an takrahu shay'an amaan na léeg ngeen bañ dara ci jigéen ñi waaye yàlla fii xayran kasiran yàlla def ci yiw bu bari mooy lan yàlla def mu am doom ju baax bu tekki ah tabaarakalla yor leen kon nag léeg-léeg mun ngaa bañ dara ci jigéen yàlla def ci yiw bu bari wala fekk jaba doom amul woon doom am ku ne di di foowee doom ji bu yàggee rek tabaarakalla cofeel ñëwaat sóor nisaay la ko wax wa qaala taala yàlla nee na walan tastadiu yéen góor ñi euh, def ñaari jabar yéen borom euh, polygamie yi yéen ñi def jabar yu bari lan walan tastadiu attanu leen mënu leen an taadilu bayna nisaa yi ba ngeen di maandu ci diggante jigéen mënu leen maandu ci diggante jabar yi ngeen takk de wala xaaristum doonte xemmem ngeen ko bëgg ngeen ko mënu leen ko waaye li ma leen di tere daal mooy falaa tamiloo kulla ma leen bu leen jéng bépp jéng maanaam bu leen jël rek seen bopp féetale ko ci kenn ka ñaareel bi wala aaw ba fa tazaruha ngeen bàyyi aw bi wala ñaareel ba kan mu àllagat mu mel ni rek dafa nekk foofu rek comme meebul loolu nag baaxul waaw li am daal mooy na ngay maandu rek waaw yemale bi moom mënul wax kenn mënu ko waaye wayn tuslihu bu ngeen rafetee seen diggante ak ñoom ñaari soxna yi wattaqu ngeen ragal yàlla fa inna allaha kaana gafuur rahim ah, leneen loo fa def ci diggante bi yàlla mun na jéggale mun na yërëme waaw nga noonu sortu ni la ñëw wa qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yonent bi nee na man képp ku takk soxna bi sadaqin képp ku takk soxna ci bi sadaqin ci can misliha maanaam canu kem maanaam li ko li ñu canoon moroom yëpp nga nga canee ko can bu toll noonu waaye wa yan wi an laa yu addi an laa an laa waaye moom yéene mooy naru kaa jox can boobu moom liñ koy jàppe cere mooy mu ngi njaaloo mu ngi njaaloo ndaw soosu de waaw min badri zawjayni wa xayri loolu ñu ko jëlee ci bi bi ne badru zawjayni ak beneen budul wax loolu wax na ko waxal sala salaam yonent bi neen inna innal mar'ata xuliqat min dilain nee na jigéen ñi dañ leen a sàkk ci faar bu faar bu gën a dëng ci faar yi waaw maam sunu maam Hawa yéen mu ko yàlla mu ko bind ci faaru aadam yéen nag lan tastaqima lakk nang la wóor ne sa jabar munul jub ci yow waaw pour mu jub xoj ala tariqati ci yoon bi nga bëgg mu jaar mënu ko li am kay mooy fa ini inistamtaata biha sooy bànneexu ci moom maanaam ngeen di jote rek ah istamtaata biha da ngay jote moom rek ngay bànneexu waaye wa biha iwaj na la wóor nag eh, ndëngate boobu mu ngi ci moom moom ba ndëngate boobu moom bàyyi ko fa mu nga fa waaye wa in zahabta tuqimuha boo demee bëgg jubbanti ndëng googu kasartaha nga damm ko waaw wax kasartaha damm ga nag mooy dalaag waxa nga nga fase ko waaw moom kay jigéen boo ko bëggee jubbanti rek fase rek moo ci topp waaw rawaahu ñox solo wa an abi hurayrata radiallahu anhu jël nañ si abi hurayrata mu jële si yoon an nabi sallallahu alayhi wasallam nee na qaala nee na laa yafrak muminun muminatan bu mu bañ mukk bu mu bañ mukk bu mu mere mukk jullit bu góor jullit bu jigéen ndax in kariha minha xuluqan su fekkee bañ nga ci moom benn jikko radiya minha na la wóor ne gërëm nga ci moom aaxar beneen jikko kon nag àndale ni mu rafetee rek sa jabar moom nu mu munta mel nu ne nekkal ak moom rek ah jàmm ñooy waaye dem di koy weeji wala tabarak yooyu baaxul rawahu muslim mook solo waa an wa alayhi salaatu wasalaam jëleen ci sonant bi salaa salaam nee na walaw laa xawaaw bu dul woon ak sunu maam xawaa lam taxun kon du mooy mukk maanaam du wor mukk unsa jigéen zawjaha jëkkëram addaxara ci àdduna raw cheikh a ñoo solo waaw sunu maam xawaa adama moom boo fi nekkee moom képp la woon waaye nag bi yàlla sàkkee xawaa nag indi ko ci wetam nag fa la programme bi commencé nag waaw ba seytaane iblis ba ñëw nag jaxase leen ba lekkaloo leen loola ñu génn leen garab génn leen aljanna ma nga noon waa an muawiyata al qusayri radiallahu anhu jëlee nañ ci kii nee na qultu rasul nee naa yow yonante bi ma ne ko maa xaqu zawjati lan mooy àqu jabar ahdinaa kenn si ñun alayhi ci kawm mu yonante bi ne ah àq kay xam nga ko mooy tut'imuhuma iza ta'imta na nga koo jox mu lekk soo lekkee rek na lekk waaw wa taksuha iza tasayta na nga ko solal saa yoo solo saa yoo jëndee yëre yu bees na nga ko jëndal wala tadribul wajh bu ko dóor ci kanam mukk ko pes te wala tuqabbih bul ñëkkal sa kanam bi ci moom te wala taxjur illa fil bayti bu ko dong bul tongoog moom mukk bu ko bàyyi mukk lu dul ci kër gi rek waaw seen mere daal na yem ci kër gi waaye bu mu àgg mbedd ma rawahu nasaa'i wa abu daawud bi sanadi saalih wa qaala alayhi salaatu salaam juleen si yonente bi nee na yamidu ahadukum kenn si yéen dana tey tey teylu de fa yejlibu imraata mu dóor jabaram jalda abdir comme ni muy dóoree jaamam waaye te xoolal li si gën a doyal mooy fala àllahu amaan na moom yu daajiuha mu laaj tëdd ak moom min aaxiri yow mi mujjantalu bëccëg ba sax mu ne ko kaa ñi gise waaw kaa ñi def yëf yi kon xoolal loolu rek doo tey dóor sa jabar ba mu sonn di tëdd ak moom loolu am na góor yoo xam ne dañoo dañoo dañoo dañoo naayif dañoo ñàkk fayda loolu baaxul rawahu Buxaari wa Muslim wax solo wa qaala sallallaahu alayhi wa sallam yonent bi nee na akmalul muminin iman ki gën a mot ngëm ci jullit ñi mooy axsanakum xula ku gën a rafet si yéen jikko wa xiyaarakum ki ñu gën a tànn si yéen mooy xiyaarakum li nisaa yi ki ñu gën a tànn si seen i jabar maanaam koo xam ne mooy ki gi ñu gën a tànn si jëkkër yi ja jëkkër yi jabar yi waaw koo xam ne jigéen ñi da moom lañu gën a tànn kooku moo gën ci yéen rawahu tirmisi moo solo wa qaala alayhi salaatu wasalaam jëleen si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man ixtamala min imraati képp ku yenul ci jabaram walaw kalimatan wahidatan maanaam sa jabar di wax ay kàddu yu ñaaw yow nga yenu ko maanaam nga euh, nga jégal ko ko daal aataka allahu raqabatu min annaar yàlla goreel baatam ci safara wallahi yàlla goreel ko ci safara est-ce que moo tax sa jabar bu ñàngee di wax ay wax yu bon mu ñor rek waaw yow moom doo dem safara wa awjabahu llahu lahu aljanna yàlla waral na ci moom dugg aljanna wa kataba lahu miatayni alfi hasanatin yàlla waral na ci moom ñaari téeméer ñaari téeméeri junni yiw yàlla dina ko ko jox waaw wa an anhu mi atayni alfi sayyisin yàlla dina ko évancel ñaari téeméeri junni ñaawteef ey eh, kaay kon ku am jabar ju bon taway yow léegi léegi nga dem àjjana de parce que bu yàgg say bon yëpp day dañ tabarakallah si fekk mu ngi def yu yu yu de ah da ngay bëri tiyaaba de wa rafa'a lahu ni alfin darajatin yàlla yëkkal ko yëkkatil ko ñaar téeméeri junni daraja wa kataba lahu azza wa ko farataal ci moom it yàlla mu tedd mu kawe mi bi kulli shaaratin bépp karaw ala bandi bu nekk ci yaramam ibadatun sanatan waaw ah, dañ ko koy bindal jaamu yàlla at cey yàlla fekk nga bëri karaw de tabarakallah ah, min badri zawjani fa lañ ko jëlee wa an nabi wa abi hurayra radiyallahu anhu jëlee si abi hurayra qaala nee na rasulullah sallallahu alayhi wasallam nee na dinaarun fi sabilillahi benn dinaar boo joxe ci yoonu yàlla wa dinaarun anfaqu fi raqabatin ak dinaar boo joxe ci gorel baat wa dinaarun tasaddaqte bihi ala miskin ak diinaar boo joxe saraxe ko sarax ko miskin wa anfa anfaqu ala alik ak diinaar boo jox sa waa kër azamaha boobu moo ci gën a pay allazi mooy bi nga xam ne anfaqu joxe nga ko ala ahlika ci sa waa kër boobu moo ci ëpp pay rawahu muslim kon nag nit ki looy def na say waa kër jiitu waan abi hurayra radiallahu anhu jël nañ seen abi hurayra nee na ana nabi sallallahu alayhi wa sallam nee na maa min yawmin yusbahul abd amul benn bés bu jaam bi di yeewu fii ci moom illaa malakaani lu dul ñaari malaaka yan zilaan dinañuy jóge asamaan wàcc si moom fa yaqulu ahaduhuma benn malaaka bi day wax allahuma aadi munfiqan yàlla yàlla na nga jox képp ku joxe alalam xalafan nga nga remplacer ko wa yaqulul aaxar beneen malaaka bi day wax allahuma aadi mumsikan yàlla yàlla na nga jox képp ku joxe téye alalam bañ a joxe talafan yàquti alal cey walla rawaahu buxaari wa muslim ñoo ko solo waan abi hurayrata radiyallahu jëlee abi hurayrata mu jëlee si ani nabi sallallahu alayhi wa sallam ulya loxo bi ci kaw xayrun min yadi suuf laa moo gën loxo bi ci suuf waaw ki joxe moo gën kii kii nangu wabda bi maa taqul waaye looy joxe lu ne nag nanga nga tàmbale si ñi nga njaboote waaw waaw rawax buxaari moo solo waan alayhi salaatu salaam jëleen si yoon salaam nee na xayru rijaali ummati góor ñi gën ci sama xeet alladina mooy ñi nga xam ne laa yatadaawaluuna ala ahlina duñu kawe kawelu gudd guddalu ci seeni kaw mbokk wa wa yaxnuuna alayhinna dañ leen di yërëm wala yazlimuuna hunna duñ leen tooñ wa man kaana indahu imraatun képp ko xam ne am na jabar falam yaksuhaa te sololu ko maanaam joxu ko mu solo maay waari awratu loo xamante ne dana mën muur awraam maanaam joxu ko daal ay jëndalu ko yére wa tud im wa joxu ko lekk it maa yaqumu sulbaha lu mu mën a taxawee pour mun a dund kaana xaqan alal imaan day nekk mu war ci ilimaanu dëkk ba al ñu fariqu baynahuma mu tàkkale seen diggante waaw mu fase ko rek waaw mu ngoog ba suba ak jàmm ñu ñëw ci xurmatu nazri rajul ila nisaa i ajnabiyati wa man il xuruj salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu